moo ko lii garaawul lii du lii du dara lii du dara àdduna la na si ku si nekk jàng rek parce que tey jii peut dafa jaar si man mënoon na jaar si keneen mais tey jii pour man nañ rab pour man ak sama xaritoo ak yow Adamo war naa la mën a ñaan nga bàyyi gi nga ñi lay dugal ci cas yooyu noonu mhm. ah naan la cas bi cas bi Adamo bu ñu demee kero yàlla Adamo bu dee ngir yàlla war a li nga def mën nga koo bàyyi li may wax du pour man mhm. tey jii peut-être ku nekk am na foo jaar Sénégal mooy dëkk boo xam ne léegi da ngay toog deux mille vingt ans ngay xaar li nga defoon deux mille onze ndax du génn. kenn wóolatul kenn. ñun ñi ñi nit yi ñu bëggoon sax di ñu woo appel vidéo du leen nangu décroché. parce que léegi ñëpp ragal jël voilà parce que léegi kenn mhm. bëggul jël kenn. Mhm. les gens dañ lay bëgg bëgg la gis. ngay gis famille bu def groupe woo duudu appel vidéo nga décroché ñu yuuxu mais léegi ñemewoo dara. Mhm. pourquoi donc pour man jaamu bi fi amoon. ñu ngi wax politique bi jàmm bi fépp la commencé yàqu. rapport yi fépp la commencé ñaawee te mi ngi moche. gars yi mi ngi moche nañ nañ ko rafetal mun naa espoir. est-ce que scandale boobu amul dara lum la yàqal ci moment boobu nan la la def. dara. man pour man lu yàqu dafa war a yàqu. sister sister Zey. foofu man garaawul lii garaawul lii du lii du dara lii du dara àdduna la na si ku si nekk jàng rek parce que tey jii peut dafa jaar si man mënoon na jaar si keneen